ci liggéey bi muy amal boobaak léegi mairie bu Touba bi jëmale ko nag ci li nga xam ne rek moom moo di éclairage public bi ngir waajale ko màggale ko Touba bi jamono ji nag door nañ ko boobaak léegi ñu toll ci route nationale bi lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay lamp yoo xam ne fas yéene nañu ko fee samp ci dëkk bu sell bii di Touba laata ñuy egg ci màggal gi. appel bi suñ mën taxaa def pour dëkk bi ni mu amoon euh, problème mu courant ak lëndëmaay bi moo tax laat ka lépp loo xam ne ndigalu sëñ bi waxtu mu ne ci lay nekk moo tax mu jël équipe bu bees boobu wut ay moyens logistiques yoo xam ne ci wàllu éclat public bi pour dëkk bi mën a leer. def nañ benn bon de boo xam ci lampe presque 850 lampe yoo xam ne dañu ko remonté balaa màggal euh, pour dëkk bi fi xam ne leerutoon mu gën a leer. loole nag am na ay bërëb yoo xam ne ñoom la ñu gën a teg bër na ci ay pénc yi nekk ci dëkk bu di Touba ak yenn mbedd yu mag yi nga xam ne dafa lëndëm lool wala sax foofee am ay jafe-jafe ci wàllu làmp ñu taxaw temm ngir sopp yooyee def ci yeneen yu gën a méngoo jamono loolu nag bu amee mi ngi amee ci ndimbalul maire bu Touba bi ay millions yu bëri yoo xam ne rek jamono ji itam jotees na ko cee def lampe day ñaari façon benn bi xam ne lampadaire yi président Macky Sall moo loolu jaar ko ci maire bi loolu moom li lépp samp nañ ko mais li ne nag mooy biir dëkk bi ak yenn mbedd yi ak pénc yenn pénc yi loolu ab Lahad Ka moo ko leeral ci ci euh, ci ndigalul suñu Muntaxa ci ak conseil municipal bi. di commencé héliport Touba Oual ba rond-point gare Dakar foofu taal nañ ko taal nañ tam li commencé tam gare Dakar rond-point gare Dakar ba ci jumaay taal nañ ko. taal nañ tam diggante Daaru Xudóos ba daar Musi taal nañ ko ñi ngi bëgg a ñu dese mooy euh, Gede moo ñu dese euh, ak Asalem te foofu ay paan la yoo xam ne dem nañ ba iti jugo ba xam paan yi fa nekk moom la ñuy bëgg a ñëw nag pour reprendre ko balaa dina une semaine foofu mën a féete boor. njóobentaay bi tam bokk na ci paan yooyu ak marché occas bi li ci li ko wër loolu tam ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy recensé pour xool paan yooyu tam ñi ngi ko mën ndax matériel bi yëpp ñëw na lépp ab laat ko na ko ci ci ci ci ci montant bu seer. Abdoulahad Loum di superviseur bi tey itam kuréel gi ñuy wax 100 pour cent Abdoulahad Ka rafet lu googal ak liggéey loolee lépp nag ñu ne nag dañ koo jëmale ci wàccaayu ko màggalu ko Touba gi ngir fexe nag ba dëkk bu sell bii di Touba bokk ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a leer